nga wax ci njëlbaan ne déclaration bi mu am bi mu wax déclaration bu garaaw la pour gouvernement bi bu garaaw la pour moom ñaari mbir la seetlu ci Idrissa boo déggee wax ju mu wax lu ca gën a bari waxu xaalis la waxu liggéey waaye attention wax jàmm caay wax du dëppoo koo xam ne jàmbar la ca waar wa mbala koo xam ne xaalis dafa yaakaar ne liggéeyee koy joxe góoma loolu man nit bu ragalee liggéey bu gisee ku nekk ci waar bi di liggéey bu ko rombee daf naan kii ndax mu ngi béy nay wu tang wi ni nu jonkone di bi jaxal ma liggéey bu la welemee bo gisee ku nek ci war wa comme yow mu loko da ngay def si sa bop ne ki nekkul ci war pour nga pour yow si sa bop nga apaiser sa bop dalal sa bop parce que bo rombee sa nawle muy wala te nga war ko def dana ñooñantal sa xol lolu ben la ñaar moy xaliss kaddu gu Idrissa Seck ndika genn ci bam Ablaye mooy ba mu defee kase numéro un lam fësal lam feeñal mooy suñ coono alal jeex na ci àddina ne ko la ko waa ji wax ba mu del seete ba mu waxee ñun xaalis la wax ba muy négocier Ablaye Wade xaalis la ñu wax xaalis xam na njëriñ waaye day fekk mu lew day fekk mu xam njëriñ day fekk mu barke liggéey nag mooy li yor àdduna te mooy yor askan bi moo yor jullit bu nekk ku ko far rek far nga sa sa diggante ak sa borom juróom benn weer nga toog France sénégalais dund lu ne fii nga wàcc rek daggee ca lang nga naan liggéey amul ci réew liggéey amul ci réew mi loolu yomb na lool xam naa dana ngeen waat bëre dem na ci boppam ba nga xam ne yaakaar naa ne liggéey mën na ñàkk liggéey nekk président de la république loolu manta ne président moom il faut nga dem ca naaj wa taxaw ca naaj wa ñu fekk la fa ne la jaaraama jëf sénégalais yi nangul la ko